heure El Hadji ay Aïdara sama grand. <laughs> non non non non heure heure bi moitié bu baax heure bu baax bi moom yow la. non six heures trente ba ba ba ba sept heures quarante. El jàppal ni daal ah sept heures xam sax ay trente neuf ngay dugg. des fois nga dugg trente. des fois nga dugg quarante cinq non day ëpp moom xam nga man dama jëm mag. léegi comme que dama jëm mag sax nag xam nga léegi xam nga man sax dafa am lu ma leen bëggoon proposé. waaw pour léegi daal léegi may ñëw ay booru mooy dix. mooy dix la ah déedéet li saa neex naan boo bàyyee ba mooy quatre. mooy trois. déedéet nga saa. déedéet. nga xam ñetti journaux laay laaw. déedéet la waay de waxoon tombe des animaux et des végétaux. waaw bu ko def tombe des animaux et des végétaux. <laughs> le retour le grand journaliste. Birahim Diadji Touré. daa la nekkee woon. day mukk ci àddina. mukk ci àddina mukk ci àddina. bu ko tontu c'est noonu la de Birahim Birahim Touré moom. da lay provoqué. maanaam non loolu sax loolu dafa bokk ci màggal gi. parce que Xaadimu Mustafaa borom màggal gi de. ca ganaar la tàmbalee wutali gileem. kon teraanga dikk na. dégg nga loolu. dégg santalee ma sama borom. teraa nga jëg ndam li déggoo ma de kon eh boo lekkee wàcc boo lekkul wàcc. yow oh, Biray nga war faa nekk jàpp ci affaire yi ah ñu ci affaire yi donc. Biray nga euh, ci la boobu maa ngi yónnee Mame Sidi. waaw maa ngi yónnee benn photo. waaw Mame Sidi dama bëggoon muy dugal photo boobu. waaw. mu xam ndax lekk ba muy wax ndax ci laa nekkoon. wala non non nekk ci. ci euh, bokkoon na ci li ma lekk sax. mais maam ci bëggoon naa nga dugal photo boobu ñu xam. ci lan laa nekkoon. Eh, eh, eh. Ah, waaw maam Seydi. waaye tegal ñu photo nga ko. yónnee ko léegi nii. waaye tegal photo bi. <laughs> oh sama maa fi ak kàcc kàcc mooy rési bi waaye ana moom mi ngi ñëw dina ko teg waaye na ko teg waaye photo bi photo bi Ibrahima taxawaay yee seetu borom daaru dafa am cër nag ah, kon génnewoon photo bi nga tax ak Saliou Khoule dafa am cër nag maam si di geneen photo boobu dafa am waaye Saliou Khoule boobu mu ne la mu ne Saliou Khoule boobu moo fa nekk bu rëy waaw Siré moom temps yi dama bëgg di indi son Youssou Ndour boobu muy wooyee Siré waaw mais amee da ngay baaf rek amee mais léegi kàcci kàcci ah photo baa ngi nii photo borom daaru baa ngi nii. mu ngi nee sa ginnaaw. kay. sama mafia kàcci kàcci mooy sama résumé ñoom ñooy sama Ousmane Diagne. non Birahim. non Birahim Birahim Birahim jàmbaar nga. maanaam bisu xaadimu Moustapha bi. danga ko boolewul ak lenn. tey sama waa jaa ngi nii. Birahim maa l'aimable te mu ne la tu es aimable. Mhm. l'aimable est là. Mhm. barki yonent bi. kenn moom la dama am sama benn rakk boo xam ne suñ ñaari bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi. mu ne ma waa Serif kii doo leen ma ko présenté. yaa faatu. ma ne ko kan la borom daaru mu ne ma. dama koo bëgg. mooy ba ma gisee keroog borom daaru kii yóbbu ba fa wax naa ko. Mhm. ma ne ko waa kër yonent sax dañu laa bëgg. simple baax. Mhm. attirant. Mhm. <laughs> voilà voilà la classe. oui euh, le sujet de ce matin porte sur le nom de. <laughs> borom. tu as deux points de plus <laughs> waa léegi Siré. Siré suñu sujet démb bi ci groupe WhatsApp bi nee nga droit de réponse wala de réplique. yow sa waxoo réponse réplique nga wax. replier bon c'est possible. d'accord mais léegi fi ñu ko waxee démb heure boobu la kon. waaw la suite de l'émission. la suite ah. waaw non non may ragal ñu yegg suite bi. après non non non non non. waaw d'accord let's go ce sera trois minutes. non let's go je te donnerai incha allah rabi trois minutes. d'accord c'est bon y a pas de problème wala deux wala une minute non non trois sax bari na. ah dafa bari ah waaw deux rek. d'accord d'accord mooy le dossier Agnam Civol Farba Ngom. Ngom très bien voilà c'est bon. le grand maire. limina maire par force et pas forcé. benn baa ngi. boo delloo ginnaaw day. du ma mës a delloo ay ay boo delloo ginnaaw. yaa ngi raw ah. Fatmata Ndiaye Fouta Tampi. wuy ma. Mambay Ndiaye bu àdduna doxee bañ ne Mambay nekkul candidat. Mambay meesu ko. <laughs> maama gi pafem te pare. ay lan ngay wax waa koñ na. yow de banderole bi dañ ma ko takkal. non banderole balaa ñu la koo takkal nit balaa ngaa dugg àjjana ngay dee. xare moom da nga koy def ba faut que tu sois candidat d'abord maa ngi ci xare bi. tu gagnes les élections. maa ngi ci après verte zone rouge bi doog a ñëw. non maa ngi ci. du noonu. maa ngi ci de. ah waaw bul dellu ginnaaw de. ba investisseur di jot. naam. groupe papa yi ñoom Yacine dama leen jëndee woon groupe Paradise mais xam naa naa delluwaat Medina. <laughs> voilà groupe papa yi ñoom Yaas. non groupe ah. papa yi ñoom Yaas nag amuñu nag. anañu. amuñu dama ne. amuñu lan. amuñu daal. ah diir xaalis laa soxla damaa bëgg dem élection doom day. ay ña nga fa mën nañ la le jeune frère. oui sama du ma sa am. mu ne Adama fi ak kàcc kàcc li waa régie bi lan la <laughs> ñu ne régie bi. waxuñu jàmm. mouvement régie tamit dafa am. ñoom lu ñu wax. mouvement régie kàcc kàcc. waaw mouvement régie tout ça maté. kuy seen Sénégal Ndiaye yëpp daal dañuy. kuy seen candidat ah dañu def kii ñoom kuy seen candidat. mais yéen kan mooy seen candidat sax. bu bu nekkul man ku muy doon bu dul man de du ma leen jàppale. Bakary ak Mame Sidi ñoo posé gum xaw ma nag. non kan mooy seen candidat ci mairie. mais kuy seen candidat foo ngeen falu. le grand maire. Ah? de la ville de Guédiawaye. Ahmed Ba. Ahmed ah. yow. non nee yaa non parce que dafa am Ahmed Ndiaye ci biir kii bi. man Ahmed Ndiaye. Ahmed Ndiaye Guédiawaye la dëkk bi. ah xam léegi. non nee na yow yaay seen kii. candidat seen candidat. waaw Eh, maa ngi nuyu nag euh, le grand le président El Hadj Malick Gakou maa ngi koy siyaar di ko nuyu bu baax a baax. Mhm. magu Mamadou Fofana. le généreux suñu grand frère ah. suñu mag le médiateur la coronateur. voilà moo am doomu tànk ba muy ñaari yoon. suñu mag au niveau national dañ ko def coronateur. au ci au niveau départemental. démb réunion bi au niveau départemental Géejawaay gépp ne ko defaat nañ la coronateur départemental. muy ndomba tànk ba muy ñaari yoon. ana ceeb bu weex bañ faa ñëwoon. waaw ceeb ba day ceebu opposition. ceebu opposition opposition bu niróo ceebu pouvoir. eh kon ceeb bi neexoon na. ah, ah opposition mën na ñàkk waaye. jamono yi jamono yi wala eh, ma eh, naan ma ma gis ci Facebook bii. ndekki opposition. ceeb bii wii la. ceeb bi ka weex na waaye nag. mbaa bi ceebu opposition bien gàtt. ceeb ba bëri ay bagages. ba da war na wér. ba. ceeb non non fi mu kii poos. ceeb yaa ngi ko koy yoratul dara. fi mu nekk nii kay xam naa bu tegaatoon ceeb. ceeb ba day. ceeb ba lenn ca digg ceeb ba man ak moom ak ngaa ko beleen dañu tiim ceeb ba. ceeb gars yi ne ma ceeb bii du ceebu opposition. opposition du ceebu non. rax na ceeb ceebu wii la. <laughs> ndax terminé rek a ñëw ak ñun ci passeport diplomatique yi hmm. joxe ci pauvreté ak. Siré suñu àll bi nga xam ne dañ koy caxa caxate Mamadou Lamine Diallo dafa ne. xam nga Macky Sall il avait taxé les chefs religieux de citoyens ordinaires Macky mu jare oto yi nga xam ne maanaam dañ koo joxoon kilifa diine yëpp mu daal di koy nangu ne day assainir waa ji nag assainir googee nga xam ne moom la Macky doon def waaye échoué na parce que passeport diplomatique yi wane na ko Macky yàqu na ko tribune yéene kaay nañu tweet contre tweet Abdoul Mbaye day attaqué Macky ca tiwit ja hmm. dañuy tiwite rek Macky mii Sonko waxoon na ne Tony Blair mu nekkoon Grande-Bretagne PM moo nekk ci ginnaaw terrorisme Macky ci boppam tey dëggal na ne mook Tony Blair nee nañ allo oui monsieur how are you fine jokkoon nañu téléphone ca tiwit ba kàcc <laughs> kàcc ah, ah, mu ne ca tiwit ja la wal fa di ñëw ak ci gis nga Benno Bokk Yaakaar oui la la classe vous suivez oui alors ah, voilà je pense que les conditions d'aujourd'hui sont un peu euh, mais ça ira. sa classe <laughs> mais man je ne suis qu'un professeur. ah oui. je parlerai à l'administration je parlerai à Moustapha Guirassy <laughs> parce que c'est lui le patron de l'IAM c'est ça hein ok. wal fajri ñëw ak ñun ci Benno Bokk Yaakaar gis nga wàllum investiture yi <laughs> yaas yaa du daanu la ma du daanu de man baax day am ci investiture yi Birahim xam na li may wax non fi nekk nii am na ñoo xam ne siré gëmuñ sax ne mën nañu doon ay candidat waaye il faut nga xaati yéegal enchère boo amulee maire am adjoint mm-hmm. boo amulee adjoint bokk bureau municipal su mënul de ba gën a dee ba gën a dee nga doon conseil municipal simple dégg nga de benn ah. wala nga dugg au conseil ah mafia kàcci kàcci gàngoom donc su ma di ñëw ñun ci mafia kàcci kàcci Ousmane Diagne nii gis nga ko boo sàgganee tey jii danañu ko defeeri Ousmane Diagne dafa bind ne Mamadou Massaly moo yombal audience su Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ak benn euh, euh, autorité boo Macky Sall bonjour les dégâts. moo nekkoon courtier ba. mais ñoo war nañ leen a déglu loon day sekk signature de na lay leer. looy waxati na lay leer na lay leer. non du day sekk signature de. mooy Fat Fat Ndiaye. Fat ah, Talla Ndiaye waaw ah, Fat Talla Ndiaye excuse-moi. Fat Talla boobu rek laa bëggoon. waaw ah, très na lay leer na lay leer. na lay leer. waaw Régis na lay leer waay. wax lu la wóor la. <laughs> waaw Régis waral na lay leer waay. bu dee teg na la. waral na lay leer Siré. c'est Siré kii mooy commandé son bi gis nga Siré. beneen Covid du été baa ngi nii mooy sibiru gi palu bii dégg la euh, euh, soleil yéen i kaay ñëw ak ci li ngeen doon wax sànq ñàkkum kayit réew mi doon fi étranger gën doon fi sénégalais ay nit ñoo xam ne ba ñuy juddu taamuwuñ fa ñuy juddoo ak fa ñuy juddoo ay kayit acte d'état civil nekk doom bu góor ca ñoom mais gis xam nga dañ naan Casamance mhm. problème rébellion beeg yooyu mooy seen problème mais journal bi nee na l'autre drame du conflit casamançais mais extrait de naissance gone ñu ca bare bare bare bare bare bare bare bare amuñu ko réew mi ah ah est-ce que loolu fépp mais da day kaa sa Casamance donc réew mi quotidien ñëw ak ñun ci Fouta Tampi ak Plaine Tamassalik militant Ousmane Sonko bi ñu ngi ko garraaw yi démb ba léegi la sabab lu ni mel nag mooy Outmane Diagne dafa ne ma moo doon courtier diggante Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi <laughs> ah, waa Kër Macky Fouta Tampaane Fouta Mojji moo fi am ak Fouta Tampi ki defoon Fouta Tampi moo dem léegi Fouta Weli euh, euh, euh, Fouta Mojji Fouta Tampaane porté na ko plainte te dina leer Baye Niass moom nag bàyyi nañ ko mu ngi bi mais alxamis day wujuwaat waaw moom mi waxoon ne Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi daal laal oto laal kër laal xaalis. dinaa miin yoonu digg. te yàlla suñu borom. laal quotidien yéen i kaay ñëw ak ñun tii. ak Sal Saly ak Daara Jolof. gis nga wàllum koom gi. gis nga ko nii. c'est eh, eh, yow kii agression yi am ci biir réew mi est-ce que fi mu nekk nii gars yi ñu ngi ciy bàyyi xel kii. Euh, Fofana. <coughs> na mais ay dee yu atroce yu méttee ay diw bu ñu ko jamee bi mu dee dañ koo xoj ay dee yu miti loolu moo tax fukki sénégalais yoo jël juróom-ñaar yëpp nee nañ na peine de mort dellu si. ku rey ñu rey. ku rey ñu rey la ku rey ñu rey la afrobaromètre seen seen seen bi ñu doon def ñi gën a bëri ci sénégalais loolu te xam nga lan moo gën a indi ñàkk kaaraange gi ci réew mi Birahim chômage des jeunes ñàkkum xëyub gone yi ñàkkub xëyub gone yi. ñàkkum xëyub gone yi yaas ñàkkum xëyub gone yi moo gën a indi ñàkkum kaaraange mais boo amul looy def looy def. agression sàcc. critique yéen a kaay waaw kay lii ngeen doon wax xam nga gars yi dañ ne passeport diplomatique trafic journal bi ne xoolal expression baa ngi l'arbre qui cache la forêt. passeport diplomatique yi maanaam moo feeñ mais dama ne ne même kayit bi ñu lay jox ngir nga dem suuli sab néew. trafic extrait de naissance yoo xam waaw mais dama ne ba ci carburant bi laa la wax. carburant mel ni faux la. évidence yéen kaay ñëw ci Ndakaaru Njaay jël Jóob waruñu koo def ay affaire séeréer joola waaso wolof wala je ne pas quoi en sumana d'enfant moom moo ko wax dégg loolu askan wi géejawaay taxaw nañ de installé nañu démb bureau ba départemental samedi commune ya mercredi départemental dégg nga loolu Amar Kourouma moo signé lii di communiqué bi enquête yéen kay ñëw ak ci scandale baa ngi nii te xanaa xamoo ne dañoo yaakaar ne coow li fii rek la nar a yem mais le Sénégal risque gros ah mais gisoo li Walf bind démb waaw Walf nee na démb fi mu nekk nii ñu yor passeport diplomatique wala doomu sénégalais mais léegi bu ñu yegseetee ci aéroport dañ leen di surveiller comme du lait sur le feu ah oui voilà day na waar ah direct news ñëw ak ñun ci Moubarak Lo l'enseignement de Serigne Touba la grand magal ah oui oui mais non non mais ça ira dégg nga wóoy ma yaas. xale bu góor baa ngi nii. par force et par force. xale baa ngi nii xale baa ngi nii. yéen askan wi àggee amet a amet ñëw na waaw. amet ñëw na. amet ñëw na. Soore ñëw na. Mali Mali Mali réunion yeewi askan wi. waaw xale bu góor wax Ndiémé Ba. Ah? xale bu góor lan la wax am xale bu góor jotagul. direct news lan la ci wax. non direct news dañoo bind ne yeewi askan wi fi mu nekk nii. jóg nañu mercredi. dañuy commencé yëngal biir géejawaay. xale bu góor moo wax la non bële. Ah? ah bii di ñëw. non xale bu góor bi ban Ameth. waaw non waxul. waxul ah dañoo jël photo teg ko ci noonu. waaw ko illustré parce que ku ko illustré comme ni rek. ah waaw le visage de Yewwi Askan Wi ak Guédiawaye moom. waaw ah. c'est Ahmed Aïdara pas Malick Gakou quand même. déedéet Malick Gakou mooy patron bi. Oh, non <laughs> non. je non non non Malick Gakou ay affaire député ak kooku réew mi lañ ko bëggal point. waaye kuy yootu réew mi lan ngay doy ay Sam Notaire rek je ne sais pas quoi. direct news ñëw ak ñun ci njàngalewu Serigne Touba. mu wéreeg loolu dafa ne gis nga màggal gi juróom-ñaari njàngat am na ca juróom juróom-ñaar ci ay ngëneel laam koom-koom infrastructure dégg nga mi socio culturel éducative international ba ci wàllum diplomatie dégg nga loolu yow yaas. dégg naa 24 heures ñëw ak ñun ci. nguur gi fi mu ne nii dañoo sës.

impasse dañoo arrière ba ne nii mënatuñ ci dara dara lañ ca mënul looloo tax professeur Babacar Samb nee na même bu député yi jëlulee seen i responsabilité démissionné assemblée nationale moo war a jël mhm. ay responsabilité am lalli seen malaanu kii ràññee mhm. dégg nga de waaye yow ma ne euh, euh, mbañ ngàccee ak jamra bu ñoom ma Matar Gueye ne loolu yëpp dafa sori mhm. procureur ci boppam moo war a s'autosaisir Bassirou Gueye yow waroo xaar ñu lay indil ay plainte déedéet coowal ay dañoo nga gaaw coowal Karima gaaw coowal Khalifa gaaw coowal Sonko moo gaaw toogoo leen xaar ñu leen di saisir déedéet yow bas ngeen yaa woote conférence de presse wooteel Khalifa de sa kaso ba lañ ko laajee mi ngi nii Mamadou Lamine Diallo ne dama ne dignité réew mi ci boppam xam nga ne moo moo laaleeku Boubacar Seyni te kat xam nga dégâts collatéraux les les les pots cassés xam nga kan moo koy paye le sénégalais lambda le citoyen boo xamante ni moom innocent du ci dara ñooñu tey seen der moom moo yàqu ci bitim réew. Mm-hmm. lu leer laa la wax. parce que waa Jamra ngi ni lay procureur ana lu muy xaar. du woote. Ousmane Diagne mii nii bind ci Massaly. plainte ne salaamaaleykum ñu woote Aïda Ndiongo ñu woote Karim ñu woote <laughs> eh, ñu woote Ousmane woote mu sell bi Khalifa woote Ahmed woote dem naa de maa ngi dem ah, non non non des na non non non voilà les deux minutes de Siré voilà Siré la question Siré Siré Siré Siré non non non non c'est que xam nga dañu nekk ci télé. waaw sensible. non non non non non non sérieux sérieux première chose voilà première chose damay interpeller ministre de de la santé. voilà ah, première chose j'interpelle le ministre de la ah, santé. hôpital bi nekk Agnam si woon. waaw médecin bi. dafa manqué ay jumtukaay ba. waaw dafa woo Farba. waaw pour wax ko ni problème mu. jumtukaay yi ñu am. Farba ne ko débrouille toi. 30 secondes bi ne ko man du ma débrouiller. waaw su matériel ñëwul du jël pass.